sénégalais nekk rek partout dans le monde dañu seetaan tey mbokk yi ñoo fii ci stade Iba Mar Diop li ko waral mooy bis bu mag bi nu dégmal bés bu mag bi war a am le 19 décembre fële ca arène nationale war a dox ci diggante ki nga xamante ni mooy Tapha Tine doomu Bawol ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang doomu Pikine bi waaye nag mbokk yi fekk nañ fi Fallou Faye léegi le président de l'écurie moom la ñuy jox micro yi mu nuyoo dalal ñi nga xamante ni ñoo fi nekk su paree ñu jox ki nga xamante ni moom mooy Tapha Tine mu wax ay supporteurs am wax ak réew mi président ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay asalaamualeykum. ana waa Bawol. ana waa écurie Bawol. eh dégguma dara. waa asalaamualeykum. Oh, waa Bawol. asalaamualeykum waa Sénégal. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci sa ak ci sa sant di sant nag euh, directeur stade bi ak sécurité bi démarche bi ñu adopté nag ci écurie Bawol dafa doon démarche bu bees du ñu bëgg a jël en main li nga xam ne ñoo ko moom may def appel à toutes les écuries responsables yi ñuy laaj ñuy ñaan responsable toutes les écuries yu jël en main seen écurie yi trop de violence dans le sport li koy indi nag mooy responsable yi dañoo bay xele yi bay ñëpp ñuy def lu leen neex désormais ñun fii ci écurie Bawol yàlla def na mu suñu xam violence daaw ñu def violence mais appel boobu la ñuy def moo tax ñu ne balaa ñuy def dara en tant que président du ñuy adressé wu à toute la population à tous les fans et tous les supporters ne leen bëgguñu violence mosuñu am violence te bëgguñu mu tàmbalee ci ci ci combat bii kon jaaraama yéen waa Bawol mosu leen a def violence loolu na continuer beneen bi tamit dañoo bëgg ñi nga xam ne mooy ñi ànd ak Tapha ñu mobiliser lu ëpp la ñu daan def parce que Bawol gox la boo xam ne moo ëpp ci Sénégal laay mën a wax kon bëgg nañu cent pour cent Bawol muy écrit yi fi nekk yëpp muy Bada Dione muy Bawol muy Malick Sy muy Ngunjaan muy Plateau Cheikh Mbaba ñun ñëpp ñu bootu ci ginnaaw Tapha ñun ñëpp suñuy supporter rek ñëpp ñu àndoon benn pour que force de frappe bi li nga xam ne mooy sunu doole ñu wone ko li may mujje nag di gërëm ñi nga xam ne ñoo jàpp ci bés bii ba mu taxaw taaru nii mu taaroo parce que lii bu ngeen ko gisee xam ngeen ne ñi ci jàpp bari na di gërëm di sant ak sunu invité muy Pape Thiam nga xam ne Jurbel la jógee ñoo ànd ak nun ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw bëggu ñoo feeñ ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di def un dernier appel mooy nun fair play la bëgg di gis bawol bawol mosta violent te bëgguñu violence bu kenn def violence bu kenn jaare ci nun jaare ci suñu combat di def violence kon non à la violence vive le fair play un message très important. une minute rek pour moom moom moo woote nee nañu une minute pour PAM responsable politique à Diourbel moom tamit dafa teew ci bis bi ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum waa Bawol Bawol maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu jeunesse bi. leen wax ne Pape Thiam leader politique inspecteur des impôts et des domaines ñu ci ginnaaw Tapha Tine alors jeunesse bi maa leen di woo di nuyu presse bi di nuyu amateurs di nuyu ñi nga xam ne ñoo yor euh, CNG de lutte mais également ñëpp teewul fii pour jàppale ki nga xam ne mooy Tapha Tine te jógee Bawol mooy wax ne Tapha ñun la am dañu war a nekk ci ginnaawam nekk ci kanamam bu xewle lépp loo xam ne lii. ñoo ngi jàkkaarloog xale bi nga xamante ni moo daje woon ak Bombardier ñoo ngi jàkkaarloog xale bi nga xamante ni Yékini Senior la mu jébbaril fële ca stade Amadou Barry daan ko avec la manière. Tapha Tine réew mi ngi lay nuyu biti réew fépp doomu mi nekk rek ñoo ngi bu baax a la jox sa wàccuwaay maa ngi lay nuyu. waa asalaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi nuyu képp ku fi teew ci stade bi tey di leen jéeglu di leen wax mosa coono di sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suma ñaari waajur comme ni ma koy waxee di nuyu waa Bawol yëpp di nuyu képp ku fan si Tapha ak képp ku teew ci stade bi ak ku fi teewul maa ngi nuyu ñëpp di nuyu képp kuy Bawol Bawol ak képp ku di njàmbur njàmbur wala saalum saalum wala kajoor kajoor maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp comme ni ma koy waxee maa ngi gërëm sama mbokk xalpulaar yi soose maninke manjaago ak joolaa yi ak suñu mbokki chrétiens yi aussi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu Sénégal yëpp di ñaan jàmm si dëkk bi yal na dëkk bi stable mu bañ a am benn histoire waaw bu loolu weesoo ku ne xam na ne ci bés la ñu jëm ñun ñëpp te yaakaar naa ku ne xam na ne bés bi ñu jëm muy suma diggante ak Boy Niang mu nekk làmb ju mag joo xam ne bu dàqul ci saison bi mën naa ne deuxième lay jël yàlla nay lamb ji fi dàq te yàlla may ñu ci ndam amiin noon bu loolu weesoo nag maa ngi ñaawlu aussi li nga xam ne moo xew passé stade muy diggante Papa Sow ak Siteu di ko ñaawlu man am na vidéo yooyu du ma ko seetaan parce que man daraay violence du ma ci dox Tapha Tine bu ko xam mën naa ne def naa seize dix-sept de carrière kenn mësul dégg ñu ne leen atte tafaatin fii samay supporters man mën naa ne noonu lañ mel ak ñi bokk yàlla ak ñi bokk ak ñi bokk Tapha Tine te yàlla tax noonu lañ mel man loolaa gis ñoom comprendre ngeen kon nag ñu ngi ñaawlu li xew te xam nga ñi koy def bu fekkee ay nit ñu ànd lañ ak seen sago nañu ko bàyyi quoi ku ma ci lim rek yaa problème ñoom ñëpp attends may ma rek ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci ñoom Moussa jum laa ciy cité teg noyoo bi ci loxo mu tegal ma ko ci booy yëpp yaakaar naa ñun ñëpp mooy suñu grand fii kon foofu mot na bu loolu weesoo nag maay sant waa Médina aussi waa Fass Gueule Tapée Colobane Medina Robes Niathioker ak pompier nga xam ne ñoo seq zone bii ñu nekk. ak Dakar Plateau bi aussi di sant aussi le maire Bamba Fall bi nekk fii di ko nuyu en passage. waaw bu loolu weesoo aussi di sant aussi sama président écrit ñu koy wax Fallou fay nga xam ne sànq ni moo jël kaddu léegi ak Pape Thiam Pape Thiam suma xarit ñoom ñëpp nekk ci politicien bi. ak Bada Bada ñii ñoom maire Djib caw xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak Amet Dieye xam nga ñoo ñëpp sumay nit lañ ay ñoom tin xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di yaakaar naa prési falu fay message bi jàllale na ko maître Pape seen aussi maa ngi koy nuyu waroon na ñëw fii teew bu ndondol mais yaakaar naa yoon na fi délégation quoi ñoom ñëpp ñu ngi pare combat bi wax dëgg yàlla seen ay soutien ñëw na sama tonton aussi Mor Ngom maa ngi koy nuyu di nuyu aussi Moustapha Cissé Lo sama turando El Pistoro Lo maa ngi aussi ku may jàppale la wax dëgg yàlla. ayca ñoom si ñor loolu ñëpp maa ngi leen di nuyu aussi xam nga ak ñoom madame Mbacke bi ñu bokkal liggéey bi. bu loolu weesoo aussi di nuyu suma asan papa Thioune ak El Hadj nga xam ne tout le temps ñu ngi ci ginnaaw Tapha Tine di liggéey ak moom. waaw di santaat yàlla bu baax di gërëm waajur yi xam nga di nuyu du lam yëpp. di leen wax bisimilah rahmaani rahim. acca kon ñu dem ci question yi. waaw léegi Tafa tey dañoo gis tey nga am combat nga woo tund bawal gépp woo say mbokk woo ba woo responsable politique yi. ñu gis nga dangaa woote ba woo responsable politique yi bés bi moo nu toll. wala adversaire bi ngay dajeel moo toll noonu. xam nga bés bes dañ koy fonk te man dama fonk bés te bés yu mel nii boo ciy dem da ngay ànd ak say mbokk yëpp xere la quoi doo bàyyi benn nganaay te man lam ji mel na ni kuy doog a bëre grand combat ci stade jom bii laa bëre woon sama première grand combat su may deuxième combat yëpp fii laa ko defee te lam ji mel na ni kuy doog a dóor te boo yi may liggéeyandoo ensemble xam nañ ci dara. te balaa ngeen cee xam dara ñu yegg ci bés bi incha allahu rabi yee. ayca Balla ayca. waa Tapha léegi ñu gis ni bëri na ay combat xamante ni bëri na ko jàng bëri fa ay combat xamante ni sénégalais yi yëpp nangu nañ ni tu es champion waaye tey ndax xale bi ngay dajeel tey ndax xam nga ko xale bi ngay dajeel amateur yëpp nangu nañ ni xale bi ngay dajeel xeexkat la bërikat la est-ce que yaa ngi sóoraale loolu. non nothing talking about aw ma dara dara lu ma koy wax I am working night maa ngi liggéey anytime aw ma lu may tiit ne ni big man yi nekk ci lam ji man tafaatin Tine maa daan kon aw ma benn benn combat bu may jaaxal aw ma dara lu ma koy du noonu adversaire la nag liggéey na boo yàlla may ko mu dajeeg Tapha Tine bu bés ba laay xaar incha allahu rabi aw ma dara lu ma koy wax est-ce que yaa ngi xalaat est yaa ngi xalaat xeex bi ci Boy Niang ndax Tapha xale bi ngay dajeel yow leer na la ni xale bu ndaw la bokkul ak ñi nga dajeel ci ak li amateurs yi wax dañ ne Boy Niang numéro 2 mi ngi doog am combat ci ay combat am waaye Tapha tamit mi ngi doog am combat est-ce que loolu yaa ngi xel bu baax a baax. waaw même question bee ñëw rek. Uh-huh. loolu laa la wax sànq. Hmm. ma ne la aw ma dara. Hmm. aw ma dara lu ma koy wax quoi. combat la moom xam na ne am naa combat daf ko signé ma signé ko man tam xam naa ne am naa combat maa ngi pare mu ngi pare ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey li ñu liggéey nag bu bés baa la ñu koy wone incha allahu rabi amul leneen. loolu la quoi seen combat dina am xeex yéen ñaar. non bëre door ñu wax tey bëre simple bi yaa tout boo demee ci àll bi wala nga dem Grand Yoff yomb na quoi comprendre may nañu ñuy def bëre simple yëpp su may gaañ lañ xam nga mais lii bëre door la ñu wax quoi. bëri dóor kon xeex xeex nga fas indi. exemple doo bàyyi dara da ngay bëri di xeex quoi loolu la amul leneen. da ngay bëri di xeex mën nga ñu wax naka bi est-ce que bi ni ko préparé ak ni nga doon préparé yeneen combat yi benn la. mooy li ma la wax sànq dama mel ni kuy doog a bëre. lan moo waral lool ndax lan. ngir fonk gu ma fonk combat bi. bougé wu ma fenn lépp fii laa liggéey lépp lu ma am Sénégal ci place yi laa ko amee ci salle yi nekk Sénégal laa ko amee quoi amee wu ma ko feneen. sa adversaire mu mel ni combat bi da koo fonk ndax jóge na fi dem ba bitim réew. waaw préparer combat bi. ni mu waree yow nga ne fii nga toog di préparer combat bi. waaw Sénégal Sénégal yaa tout ñam naa fee ñam naa fii ni ñuy paree combat kon xam naa nu ñuy pare combat ni ñuy paree combat moom kenn doo ko wax Tapha Tine comprendre nga euh, yàggatul daal. dafa combat bi dafa mel ni da nga ko mooy li ma la wax déggoo li ma xanaa. yow déggoo ma ba léegi de. ak ma dégg. dama mel ni kuy doog première combat ni moo ko fonke woon bii moo raw. exactement. léegi léegi léegi yaa ngi jà yaa mi yaa ngi jàkkaarloog Boy Niang numéro 2 man leer na ma ni mi ngi lay seetaan lan nga koy wax. dama la làkk anglais léegi yow xam naa déggoo ma ba léegi quoi. akama laa dégg ndax exactly aw ma. akama laa dégg ndax Dexter Lengte mooy speak in the world. aw ma aw ma dara aw ma aw ma dara lu ma koy wax. aw ma dara lu ma koy wax. adversaire la bu ma respecté nag. parce que xam naa ne champion la moom. ku ma la mais le jour si laay xaar quoi incha allah ma ñëw def différence rek dem su ma yoon. non dañu bëggoon nga wax Boy Niang lan koy indil ne ko préparé la. non aw ma aw ma aw ma aw ma dara lu ma koy expliqué. yee. ah kon yóbbante woo ko dara. aw ma dara lu ma koy yóbbante. xale bi bul fàtte ne day jàkkaarloo ak yow de am lu ma la war a wax waaw waaw na arbitre bi sànni bantu 30 mètres rek jóge foofu. loolu rek laa amoon lu may wax quoi. li ma waxoon du ma ci dellu ginnaaw bu ma ko nee puusal dafa war a puus. dat clear ah. yee bu ma ko ne puusal dafa war a puus loolu moo jaadu. est-ce que xam nga ni xale bi ñi mu bëreel ñëpp di leen yóbbu latéral defal leen affaire. waaw mais loolu baax loolu moo bax loolu affaire am la quoi man suma affaire mooy ñëw taxaw liggéey li ma war a won ko li ma liggéey is nothing jéem na quoi. léegi lan ngay wax réew mi ak ak ñi lay seetaan. waaw di sant yàlla rek di ñaan ci réew mi ak dal quoi di waxaat aussi li ñuy xew gis si stade yi nañ ko moytu di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam looloo fi nekk. bu loolu weesoo maa ngi sant képp ku fi teew ah. képp ku fi teew maa ngi lay sant di la gërëm aussi di santaat aussi falu fay maître Pape Thiam bi taxaw ñoom Bamba Fall ak ñëpp ñoom merci xam nga ñoom Mor Ngom xam nga ñoom ñëpp Diop si ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. léegi Modou Anta dafa am benn question bu mu la bëgg a poser. ñu bàyyi la nga posé la ko après ñu bàyyi la nga tàggatoo. maa lay nuyu bu baax di la siyaar. dañu gis ne yàgg ngaa dugg Pikine bëre fa ñoom Malaw Seras bëre fa ki nga xam ne mooy Abdou Diouf bëre fa Talla Gaynde bëre fa Ama Balde mais defet boobu aussi tamit say supporter bokk na ci loo xam ne bàyyi nañ ko seen tan nga fay duggaat jëlaat beneen xale muy Boy Niang numéro 2 est-ce que xam nga day wa combat bi te aussi tamit bare nga pour rectifier wu tàggoog say supporter ndax défaite Ama Balde mooy li ma la wax sànq moo Modou combat bi li mu ma jaral yéen mënu ngeen koo xam xam nga du ngeen ma gis yu bëri quoi. dama nekk suma roq gi liggéey jàpp suma njàmbur parce que man xam naa ne am naa combat te respecté naa ko te combat laa am te maa ngi ciy liggéey incha allahu rabi te bu ñu demee ca bes ba incha allahu rabi yàlla dina ma may ndam man loolu laa ñaan yàlla quoi. yooyu. Eh, Abou Ndour Abou Ndour suñu doyen mi ngi nii moom moom nee na ah. non yéen loolu ngeen gis quoi mais man gisuma loolu man moom damay liggéey topp su may ay entraînement rek quoi. léegi ñu bàyyi la nga wax ak sénégalais yi wax ak lu làmb. waaw waaw waaw di sant yàlla comme niñ koy wax daal xam nga di sant képp ku fi teew di sant monde làmb ñëpp. waaw Sakandé alias tax ci rip loolu dafa leer barki yonent bi. Eh, lu indi Sakandé bi. waa loolu sama géem la sama yëfi bopp la buñ ca yéegee dinaa leen ko expliquer incha allah. Uh-huh. waxal ak réew mi wax ak say supporters. Ousseyn Wassare mu ne Boy Niang ku ko xam xam ne day jëli mbër danaan coppe sa tànk laxasu sa bari na adversaire yu mu ko def daan leen yaa ngi xaar loolu sa diggante moom bu ne coppe sa tànk laxasu sa a la waaw man li ma liggéey laa gëm ko du noonu li ma liggéey laa gëm moom la mu liggéey moom la engagé quoi mais man li may liggéey laa gëm ko bu ñëwee xeex ak yow xeex samp jaaga xeex ak bëre dóor la ñu wax Tapha kenn du ko wax ci xeex wala boog leneen quoi leneen ngay wax ya waaw mais mooy li ma leen wax yéen du ngeen ma dégg tout le temps combat laa am damay préparer combat xam naa nu ñuy pare combat du dégg la weesu nag weesu na quoi man li suma kanam laay xool nu mu ko lijjantee nu mu gën a gaawee. ñu baal la nga woote bés ba jot ma def différence dem suma yoon loolu la ko amul leneen. ñu baal la nga woote waa Bawol ak waa réew mi. waaw di sant waa Bawol yëpp ku ne xam na ne tey ñoom ñëpp teew nañu fii maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp di rafetlu seen teewaay ñoom ñëpp tafaati nag équipe lañ équipe ñooy liggéey ak ñoom tey bu ma fi newoon di lim ay tour day compliqué comprendre li firndeel na ko ñoom Pape Thiam ñu ngi ñëw teew ñoom Fallou Faye suma président écrit mën naa ne Bawol gépp fi teew quoi kon loolu sant yàlla la quoi te bu bees ba di ngeen gis lu garaaw incha allah mobilisation kàddu yi mujj mobilisation waaw foofu moo baax Pikine foofu moo baax à domicile à domicile à domicile moom laa leen wax moom laa leen wax ma ne leen man sama fan si club bi gën a mag mu ngi buntu Pikine du ñu jël car du ñu jël cette place dañuy dox dem ko ah buntu Pikine mooy fan Pakulamba léegi léegi ñu bàyyi la nga woote. waaw waaw waaw bu loolu weesoo nag di sant sama mbokku promoteur yi ñoom Dieye Sène di sant aussi xam nga ñoom Assane Ndiaye tout ñoom Fallou Ndiaye comprendre Pape du ñoom garçon ñoom xam nga promoteur yi ne ci lamb ji ñoom Daouda xam nga di sant aussi Daouda automobile sama copain maa ngi koy gërëm wax dëgg yàlla. ak ñoom Tafatine bu kër Ndiaye loo ñëpp ñu ngi tey ci stade bi mais dañoo laxatu ñoom cuun papa cuun hélas ñoom ñëpp xam nga waaw ñoom Bamba ñoom di sant aussi suma fan si club bi Elimane jël nuyoo bi teg ci loxo mu tegal ma ko ci waa groupe yëpp kon loolu leer na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal en tout a jaajëf jaajëf merci.